yee gaay dëkk yi the gold the hall of fame the man who got the keys Mr. West gaay salaamaaleykum salaamaaleykum daal ci am si machine to West Show TV comme ni nga far defee chaque fois guys let's talk about hip hop let's talk about Ram Galsen let's talk about Ngaaka Blindé gars yi dafa question bu gars yi di posé wu naan loolu lam du loolu mais quoi qu'on puisse dire gars comme ni ñu waxee hip hop il faut être honnête en ce moment là le gars bi nga xam ni moo téye game et je répète et je pèse bien <laughs> mes ki téye game bi Ngaaka Blindé la xam nga am na benn moment boo xam ne gars yi tam dañ doon laam-laame kan moo nekkoon king game West Show moo ñu toog ne Dip Doundou Guiss mooy kingu rap Galsen archive yaa ngi fi West moo toogaat ne Ngaaka Blindé yëngal na tun tronu Dip Doundou Guiss West Show tey moo toogaat ne Ngaaka jël na trône bi si Dip Doundou Guiss et je vais vous dire ñi ngeen ñiy laaj ndax te dina ñëw après si clash bi ah. parce que Ngaaka Blindé quoi qu'on puisse dire depuis sa sortie maanaam stratégie yi nga xam ne teg na ko pour attirer nit ñi maanaam si moom laissons parler lyrics wala wala mais maanaam pour nit ñi continuer di considérer artiste bi nii que ça soit ñuy wax si moom maanaam ay commentaires yu ñaaw que ça soit ñenn ñi di apprécier mais le fait que mooy le fait que nit ñi di wax si moom daf ko def mu suivre. Sirif yaakaar Fall war na sonal la premier point mooy génn prison dugg na émotionnellement si nit ñi maanaam même si ñoom si tu n'aimes pas en tant que rappeur y a de personnes qui en tant que personne. te loolu dafa bokk si li nga xam ni moom moo di nit ki artistiquement nan la lay suivre boo ñëw nga ne da nga bëgg a catapulter li nga xam moom moo di sa game maanaam da nga ñu bëgg a yóbbu si beneen direction il faut te faire connaître léegi émotionnellement boobu noonu beaucoup d' artistes l'utilisent pour dem pas seulement au Sénégal comme la maladie de Kanye West bipolarisme gars après dañuy dem ba am benn genre changement d' attitude wala am benn genre changement de réflexion envers une personne te ngaa xam ne loolu la réussir bi mu réussir loolu de la masse. ñi nga xam ne ñoom ñoo doon classe dip parce que jamono ñooñu dip moo yoroon caabi bi dip moo yoroon game bi à part west show comprendre ñu gis ñu ngi avancé ñu ngi avancé ñu ngi avancé dip commencé na rey gars yi ndànk-ndànk quoi après dip dëppuwaat qu'est-ce qu'il a fait Ngaaka Blindé moment bi nga xam ne dip nëpp yaakaaroon na ni moom moo yor game bi Ngaaka Blindé ñëw génnee li nga xam ni moom moo di secret set bi mu génnee Secret 7 c'est en ce moment là que Wes Show ñëw ne leen carrément ne trône bi yëngatu na parce que les gens ont bel et bien apprécié album nga akabla ne te nee nañu dafa overdose le gars a pris du confiance lan la def mooy maanaam yëngal na li nga xam ne moom mooy dip Eh, di li gars yi doon wax bu njëkk bu mooy maanaam quelque chose de différent bi nga xam gars yi moom lañ mooy maanaam ngaa xam leen de moom fi ni xam nga ngaa xam leen de moom affaire dem ba xaw a laal psychologiquement nit si la génnee def musiba ba naan par king bi mën la teru dañ en fait c'est si que ni il devait encore maanaam maanaam certifié king bi moom la quoi bu fekkee bu njëkk bi il n'avait pas besoin de ça maanaam génn naan king bi nit ñoo ko waxal en ce bu mu gisee li nga xam ne moom moo ne loolu la génne par force king bi man la tegu day lii ngaa ko gën a amaat li nga xam ni moom moo di pouvoir gën amaat li nga xam ne moom moo di euh, gëm-gëm si moom quoi ne kii mën na ko génnee fu mu toog jusqu'à présent am si mois bi nga xam ne dëgg moo yoroon li nga xam ni moom moo di séeréer ñu tuuti gars yi nga. ñu profito si absence su Dip bi parce que Dip après bu mu génnee ni nga xam ne moom moo di album en certain moment il était trop naagu waa toog na def li xam nga maa nekk fi waaye nekku fii xam nga maa ngi ci biir waaye nekk ma ci biir le gars qu'est-ce qu'il a c'est le moment de profiter de ça si deux ans yi si la ñëwee xoolal lancer li nga xam ne moom moo di première coup waa Akhlou Brick dem si waat ak Taku Fall bi mu ñëwee Tàkko Fall yëkkatiwaat benn genre xeex boo xam ni yàgg na gars yi fàtte nañ ko woon Akhlou Brick qu'est-ce qu'ils fait et on avait besoin encore après li nga xam ni moom moo di seen genre flop bi nga xam ne amoon nañ ko flop bu tuuti parce que boo leen delloo ginnaaw yi gis ni carrément ak Akhlou Brick balaa clash di am am na benn flop bu extra extraordinaire en nombre de vues en nombre de prestations en nombre de albums gars yi dañ koy accueillir ñu profité si noonu noonu xoolal ànd ak ki nga xam ne moom moo di Ngaaka Blindé classe bi nga xam ne moom moo xew daaw Ngaaka leen dafa ñëw faj leen si première son bi mais après Akhlou Brick dafa def li nga xam moom moo di remontada remontada remontada jusqu'à un certain moment Ngaaka de égalisé à la quatre-vingt-dixième minute mooy vainqueur gars yi di lam-laamee

seen album bu ñuy tuddee Rap Royce malheureusement encore Rap Royce mu ngi génne dañ ko dañ ko Sénégalais accueilli ñu comme ñoom ak lu mu ñu ko doon xaaree at buzz classe bi yëpp at buzz problème bi yëpp at Sénégalais yi ni ñu toppee xam nga comédiens yi ñoom ñëpp ces comédiens laa sax demu ñu accueillir li nga xam ne moom moo di album boobu noonu nga xam ne dañ ko jegleel communauté rap xam ne en ce mu commencé dugal li nga xam ne moo di ay son fii nii nga ay. clip yi di génn fii nga ñëw ay Nowlet un Nowlet deux xam nga genre yooyu ba ñu yegg fa nga xam ni moom moo di Nowlet trois gis nañ ni carrément ne Akhlou Brick même bu génnee rapproche affaire bi dafa loowaat qu'est-ce qu'il a fait tamit ki nga moom moom mu di waa Akhlou Brick mais dafa dem cherche beneen rappeur bi doon wax ni il pèse lourd dans le game mu kan mu di One Lyrical bi mu demee cherche One Lyrical seen jaari jabar yi ay wujju peccorgo lañu dañoo xamante dañoo méyante xam nga patati patata même bu fekkee ni son Ngaaka Blindé bi at son son One Lyrical bi dafa faj ñi nga xam ni moom moo di Ngaaka Blindé mais faj mu métti le fait que Ngaaka Blindé dugal si li nga xam ni moom moo di question comique boobu noonu xam nga ay jibi say annonce ortogam bi ba créé li nga xam ni moom moo di buzz influenceurs ñëw ànd ki nga xam ni moom moo di parce que Ngaaka Blindé tamit les influenceurs yi show bu ëpp solo si li nga xam ne moom moo di carrière Ngaaka Blindé parce que gars yi leen suivre dañuy dem di suivre aussi tamit ki nga xam ne moom moo ba keroog Ngaaka Blindé ne ok jëm naa jéem ak One Lyrical mais le a amul niveau si wàllum stat amul niveau si li nga xam moom moo di wàllum yiw xaaral ma retourné waat mayaat chance waa Akhlou Brick bu mu demee mu tàllawaat loxo waa Akhlou Brick ils ont pas évité de comme je vous ai dit ils encore moment boo xam ne ñu ngi continuer di promouvoir li nga xam ne moom moo di seen rapproche que bëgguñu mu flop kon tey jii nii ñu génnee ay son yoo xam day dóob wala son clash yoo xam day dóob mën na yokk li nga xam ne moom moo di seen niveau de stream si rapport des gens qui ne savaient même pas que parce que vraiment je vous am na nit ñoo xam ni xamuñu woon ni Akhlou Brick génnee na album même bu fekkee chiffre yaa ngi foofu ah si côté YouTube wala genre yu noonu mais ñu bëri laa la wax de maanaam si game bi hip-hopeurs yi xamuñu ni Akhlou Brick génn na par mal communication bi nga xam ne defoon nañ ko Sir Royce léegi nag ils vont continuer et ils ont bien que ni stratégie bu baax li xam ne moom lañ def pour rappeler gars yi ñu mën a waxaat aussi tamit si Rap Royce parce que néanmoins que ça soit Hello World que ça soit Rap Boys ñaari album yu dóob lañu te malheureusement gars yi nekk ñu di scotché si loolu noonu dañu scotché toujours si li nga xam ne moom moo di clashé et Akhlou Brick comprendre na loolu mu ne xaaral ma continuer fii nii pour gën a yokk li nga xam ne moom moo di aay si la ngaa xam leen di génnee ci ci ou la mort nga ñëw gis aara génnee li nga xam ne moom moo di nokku national quoi qu'on puisse dire ci ci ou la boo koy confronté ak li xam moom moo di nokku national aara dafa faj ki nga xam ni moom moo di Ngaaka Blindé let's talk the truth loolu moo fi nekk maanaam si on pal de texte binde même aussi tamit mélodie bi xam nga nokku national genre yooyu noonu ak ci ci ou la mort ñaar yëpp def nañ buzz mais si on parle en général nokku national dafa nokku vraiment ki nga xam ni moom moo di Ngaaka Blindé léegi nag qu'est-ce que Ngaaka Blindé a fait erreur bu énorme bu Ngaaka Blindé fait même bu fekkee man personnellement song bind boobu noonu dóob na de mais erreur personnelle bi Ngaaka Blindé def mooy maanaam jéem a changer parce que gis nañ ni moom fi mu doon fooree fu mu noxee woon fu mu noxee woon daaw aussi afrique mooy maanaam mbay lëmbal boobu noonu xam nga dafa ñëw fii nii gars yi faj ko foofu noonu mu ne xaaral ma changer registre dem fa nga xam ne moom mu ni Boom Bap mais erreur catastrophique de Ngaaka Blindé parce que ba mu demee Boom Bap foofu la ko waa Akhlou Brick xaar man maanaam waa Akhlou Brick du ñu ay impro wala du ñu ay comi ñoom dañuy freestyle ba pare dañoo mën a bind maanaam seen texte bu ñuy préparer seen texte mënuñu freestyle mënuñu mënuñu impro mais mën nañ bind texte gars yi dañ ko xëcc si li nga xam ne moom moo di bumbe bi gars yi ne ok lekk nañ nag ñamu dëmm si lañ jàpp nga xam lan def faj ko faj yi métti que ça soit si texte que ça soit aussi tamit son parce que siri bi siri bi neex na de mais yaa day digg ndakaaru dafa dem ba lëmbe li nga xam ne moom Sénégal ñëpp ne woon nañ ni carrément ni Ngaaka Blindé dootul amati li nga xam ni moom moo di ici parce que moom moo jox gars yi li nga xam ne nañ ko noqee en fait waaw pour waxee ko mbeddument quoi hip hop Ngaaka Blindé moo sarax gars yi nuñ ko noqee léegi nag automatiquement tous ces gens là nañ doon wax ni carrément il faut Ngaaka Blindé tontu right now moom moo fi doon wax ni en moins de vingt quatre heures moom day tontu mais Ngaaka il pas été fou ngaaka nag fii moom dafa dawal xelam dëgg dëgg parce que jour après bi ngaaka bu génne woon son rek wax dëgg fa yàlla tani ba wasaana bu yàgg Eric Favre sax du am mais qu'est-ce la a fait ce gars fii la intelligence ngaaka jógee nag mooy maanaam genre Phénix yooyu daanu mais savoir se relever quoi mu ñëw xoolal avancé li nga xam ni mu muudi Iblis Iblis ba muy génn ñëpp dañu foogoon ni tontu la pour ki nga xam ni mu mooy ngaaka mooy ñoom axlu bi mais mu ñëw xoolal indi ñu Iblis l'un des meilleurs wax waxuma di ngaa xam la na rek mais l'un des meilleurs clips de l'histoire du Sénégal l'un des meilleurs clips parce que bëriwuñu en ancien clip vidéo yi doobi Sénégal yi bëriwuñu de mais l'un des meilleurs clips laa wax de wax ma ngaa xam la ne ngaa xam la ne musul def clip bu mel nii même final sa gars naan doob na doob mais bi amul clip bu ko nar a wàccee année bii nii amul nit munul def clip bu wàccee bu wàccee ngaa xam la ne ci ministre bi amul léegi nag maanaam jamono jeex na année bi moom meilleur clip de l'année moom Iblis la xaw ma xaw ma ban nit moo fi mën a changer moo fi mën a indi beneen clip mais meilleur clip de moom Iblis la wax même bu fekkee ni clip bu Mbaye Pétaw bi dóob na Mbaye Pétaw dóob na trop mais amul benn clip bu mën a wàccee li nga xam ni moom moo di euh, daanaka Sélé moom en mooy meilleur réalisateur du Sénégal gisaguma encore ko mën a wàccee ko chaque année nag day changer mais deux ans yi moom Sélé moom dominé na li nga xam ne moom moo di game ngaa xam leen di xaar génnee mbay pétaaw léegi nag coowal am Eric Favre clashante back to back kan moo nar a dominer kan moo nar a dóor ba jour bi nga xam ni maanaam jour événement bi jot na ngaa ko def li nga xam ni moom moo di tontu boo xam ni dafa dëpp li nga xam ni moom moo di carte bi mooy ngaa ko pertoon na li nga xam ni moom moo di bataille mais perte guerre bi dafa récupérer encore comme daaw à la vingt dix neuvième minute waaw si prolong bi la dugga à la quatre-vingt-dixième minute encore la ngaa xam leen de égaliser waat comme daaw léegi nag gaa yi na la dem prolongation nag prolongation boobu noonu nag moom mooy li nga xam ne mu moo tëj carte bi mais balaa ñuy ñëw si prolongation bi dafa am benn genre entre parenthèse boo xam ni bëggoon naa ngeen bàyyi ci xel sama analyse personnelle la sama analyse personnelle peut-être yéen gisoo leen ko mais man lu ma gis la en ce si ni xew-xew bi amee dafa am benn waaye bu ñuy woowee Dominique Pereira bi nga xam ni Ngaaka daf ko jële si trône bi tege ko fële waa ji moom dafa ñëw pour récupérer li nga xam ni moom moo di trône bi léegi nag waa ji bu mu ñëwee sànd li nga xam ni moom moo di lëfa lëfa bi mooy maanaam LFF LL LFLF bi mu ñëwee jox ko li nga xam ni moom moo di gars yi lépp fii la ñu fekk comme genre album le gars dafa am benn genre couleur ak benn genre attitude boo xam ni moom la ñëwee couleur bi mooy background bu jaune bi orange bi jaune orange bi mu ñëw indi ñu benn attitude juge beaucoup de personnes nag bi ma demee def li nga xam moom moo di sama investigation mooy maanaam dip bu mu lancé li nga xam ne moom moo di cover boobu noonu Ngaaka Blindé tourné wul clip bu mooy Akhlou Brick bi nga xam moom loo tontu quoi tourné gu ko mooy borom Ndakaaru Ngaaka Blindé tourné gu ko mais si tournage boobu noonu si tu vois li nga xam ne moom la si ñaari tontu la dafa tontu ñii si nga xam ne moom moo di borom Ndakaaru mais aussi daf si dugal dip juge bi ak maanaam fi nga xam ne foofu la bëgg a tontee dip quoi parce que quoi qu'on puisse dire Ngaaka Blindé il était conscient que ne dip bu ñëwee dinaa am ay pic yu ko santé te xaaru sax dip jël li xam ne moom moom di axlu bi loolu dinañ si ñëw bu ñuy chronique li nga xam ne moom moo di projet bi mais nga xam moom mooy la gis ba nga xam bi nga xam ne bu la utilisé mooy tenue bu orange bi nga xam ne joxe na ko en tant que prisonnier mais surtout aussi tamit mu jël li nga xam ne moom moo di clip bi mu teg ko fa nga xam ne moom moo di si cour d'assises en première partie bi dafa doon tontu Akhlou Brick bi nga xam ni gars yi moom wax nañu wax ñu ñaaw saaga yi nga xam ni saaga na ko puub bi nga xam ni puub na ko Ndakaaru ah en fait mu ñëw gars mm. jàpp ko xam nga yóbbu ko fi nga xam moom mooy prison mais le moment où nga xam ne ñu ngi koy interroger loolu yëpp c'était part pour Akhlou Brick mais deuxième partie bi wax ma pour pour Dakar loolu ñaari bi dafay woon dib ni moom moom moom Dakar moo ko day xam nga dib sax bu taxawoon di ko juger mënu si dara loolu sama expression loolu sama analyse la waaw waxuma nag moo am wala amul même bu fekkee nag nga xam ne loolu la utiliser il a été très intelligent de am na benn aset aspect bu extraordinaire boo xam gis naa ko si nga xam ne mooy bi muy waaja naan day jonko naan sa baay at man ñoo jonko nan doo da ngay gis carrément benn tâche boo xam ni hasard la hasard la ngaa xam ne amul xel boobu waaye amul xam-xam boobu hasard la nga gis ni nga xam ne moom moo di wëñu tissu bi nga xam ne dafa orange mu takk li nga xam ne moom moo si silib bu weex bi mu mel ni dëggantaan dafa toog mu puub ndakaaru ma maanaam tache puub boobu noonu loolu analyse wu show la man rek maa xëy mën a gis waa léegi nañu delluwaat ginnaaw si li nga xam ne moom moo di clash entre Akhlou Brick ak Ngaaka Blindé gis nga son bi nga xam ne sénégalais yi bëri farataaluñu ko mu di mbay mbay ndëmbal bi nga xam ne Ngaaka Blindé defoon na ko xam Ngaaka Blindé naan puub xam nga genre noonu pour boobu nga xam ne nga xam ne defoon na ko ensemble ak Maté ak ak ak ses pour boobu noonu la Akhlou Brick utiliser pour ne ko yaa pour pour Ndakaaru mbay petta au courant c'est que ay image visuelle la loo xam ne yéen da ngeen concentré trop si si si si si li nga xam ne moom moo di texte si mais concentré woo si nga xam moom moo di clash visuel bi nga xam ne dafa am te mu yokkal leen beneen clash boo xam ne Akhlou Brick extraordinaire def nañ ko foofu noonu en jeu de maanaam mooy moment bi ñuy utiliser soow ngaaka blende bi mooy pin pin pin pin pin xam nga mooy def buzz bi bi ñu koy utiliser xoolal niñ la wanee mooy maanaam ndaw si nga xam ne moom la ngaaka blende indi woon ba muy fii ba ñun ngaaka blende di yox naan xale bi dafa mool boo leen demee seetaan clip bi ngeen dellu ngi daaw ak ñoom gel biñ ko tegal pour ne lii mooy li nga xam ne moom moo di jigéen bu mool te bu dee jigéen mool waa axabri xam nañ si loolu ñu tegal ko même personne bi nga xam ne ñoom jigéen boobu moo nekk ñun biib mais de façon différente kii dafa mool kii dafa undee ko en tout cas lii mooy li nga xam ne moom moo di li nga xam moom la léegi nag ñu ñëwee nag si fin bi daj dëkk bi prolongation bi ñu dem si Éric Favre concert du début à la fin que ça soit si prestation yi nga xam ne gars yi génn nañ si si son mooy maanaam quand pal parle de prestation scénique Ngaka Blindé dafa faj waa Akhlou Brick quand on solo jaay prek Ngaka Blindé dafa faj waa Akhlou Brick quand on parle de ni ñu tourné li nga xam ne moom moo di si Ngaaka Blindé dafa faj waa Akhlou Brick biñ demee nag sa freestyle ba fii laa bëgg ngeen bàyyi beneen analyse bi nga xam ne def naa ko te fii damay baalu si Ngaaka Blindé bi mu ne is your new boy king aka Keung c'est six ans avant sa waayinti ba Ngaaka Blindé taxawee ne moom king la genre yooyu noonu ça waaye di gars yi bëri bëgg ko remercier parce que booy nga xam ñoom ñoo nekk di top 3 bi yëpp si waaye di la la la ko gars xam te top 3 boobu noonu waaye moo ñu yónni en fait Sénégal waaye di gars yi la war a remercier bon ñu dellu si waat encore Ngaaka Blindé bi muy dugg si prestation bi si chaise ay nit yëkkati ko pour wane majestique bi nga xam ne am na ko pour wane kingness bi nga xam ne mu si moom mais xoolal bi ñu demee si li nga xam ne moom moo di waa freestyle dafa waat wàcc waat soo baag si ginaaw wan leen ni carrément lépp fii la doore kon ça veut dire que ni Ngaka Blindé il a joué si li nga xam moom moo di psychologique gu gars yi avant ñuy dem si li nga xam ni moom moo di prestation yi comme je vous ñun ñëpp xam nañ ni que Akhlou Brick Paradise freestyle bind mën nañ ko trop mais freestyle du impro fee xam nga Ngaka Blindé dafa defoon erreur bu catastrophique bi ko gars yi invité si li nga xam ni moom moo di Boom Bap moom mu dem daanu si li nga xam ni moom mooy piège boobu yooyu nga xam ren aussi à su se ressaisir ñëw xëccaat gars yi si monde bi nga xam ni moom moom la foore moom la mënee moom moo tax tey jii ni moom la moom fan la dooree fan la déparé sol li nga xam ne moom moo di saag bi wàcce boppam nekkatul li nga xam ni moom moo di mode king mais mode man rappeur laa man lii mooy sama base man lii laa mën lii mooy sama doole si premier round mu faj ki nga xam ne moom mooy aara si deuxième round mu faj aara ba aara naankaan man est ce kii du ma ko bàyyi sax mu gagné parce que loolu noonu mooy maanaam psychologiquement fi nga xam ne nga xam ne ko du woon ko ma maa la mën si mu fekk leen ñoom mu noqee kii pare mu dem noq ki nga xam ne moom moo di Deyza pour woon na carrément doole bi nga xam ni am na ko moment boobu noonu te pour woon na ni carrément ni moment vainqueur bi jot na daaw vainqueur la indi ren la ko confirmer kon si on demande si clash bi de manière générale kan moo gagné amul sax si ki sàq Ngakha Blindé moo gagné clash bi nga xam ne moom moo nekkoon gagné confirmation quoi non seulement mu ngi leen di faj si li nga xam ne moom moo di classe yi oustaz mais oustaz mu ngi leen di faj si li nga xam ne moom moo di chiffre te du moom rek képp koo xam ne yaa ngi si rab galsen moo la gaa yi di si su naan chroniqueur yi ñoo jaay ngaa xam ne nous on sommes des visionnaires ñun dañuy gis xam nañ lan mooy marché xam na lan mooy dox léegi nag pour dép récupérer lii il faut mu def lu gën a kawe non seulement si li nga xam ne moom moo di album bu mu génnee mais aussi tamit li nga xam ne moom moo di suite logique bi parce que toog na lu mat quatre ans wala trois ans nit ñi di ko xaar ñëwaat na faaw mu confirmer ko the man who got the keys king